foofu laa doon bëgg a ñëw sax. parce que bëri fi ay réalisation yu ñu def ñu jàpp ne effectivement xëy na luy yokk Sénégal la ci wàllu développement bu ñu ko fa jëlee mais à quel prix parce que tey lu mel ni terre bi on parle de 55 pour cent de surfacturation rien que ci première phase bi donc yooyu. gis nga nag li nga doon wax ci contrat pétrolier yi. moom mooy ñëwaat fii. gis nga Sénégal moom laa lay wax. gis nga débat public bi tant que joxuñu les vrais experts waxuma ay politique de mais les ñuy ñuy gindi ci yenn yi duñ ci mës a génn maanaam rumeur yi ak yokk yi dafa bëri parce que aussi souvent aussi di wax loo xamul wax naa la samp exemple Maroc souvent dañ doon def comparaison Sénégal ak Maroc ne def nañu TGV mais xam nga li ñu waxul moo di ne hmm. développement industriel lu Maroc permettre na leen lépp luy jar fi 1000 francs jar fa 300 ou 400 parce que tey su fekkee ne yow pièce bi nga soxla da nga koy dem defarloo ji France dans une province française xaw ma fan wala nga defaree ko Scandinavie da koo dugal ci bateau indi ko fii ak ñoo koy defar foofu ainsi mais évidemment day yokk toutes les comparaisons ne ne marchent pas. lu ñu xam la de pas gis nga Maroc Maroc ak Algérie te sànq li ma doon wax ci affaire pétrole bi war nañu jàng lu bëri bëri ci Algérie en particulier gis nga Algérie fi mu nekk nii dañuy tabax. dañuy defar ay oto ay camion mhm. dañuy defar tracteur maanaam industrie lourde am nañ ko te pétrole bi moom lañ ko kii mais nag ñoom seen jaar-jaar dafa gudd 30 ans la mhm. mooy li ma la doon wax sànq mbir mi jarul yàkkamti jarul yàkkamti nañu def petit pas à pas ba di ko teg fu fu fu dëgër moo gën conflit gis nga conflit su ñu amee conflit ak pétrolier yi ñun waxuma ne duñ ci jëlee dara de waaye dañ si bàyyi bëri bàyyi lu bëree bëri maanaam on va y laisser nos plumes loolu mënul ñàkk xam nga li tax mm. pétrole yi ñu ko seqal dañu am doole te affaire wu justice lay doon mm. te ñoom contrat yi du fii lañ ko signé de y a centre international de de règlement des conflits sur les investissements Euh, il y a la cour arbitrale de Paris celle de Londres ñoom ci diggante organisme yooyu la ñu signé seen contrat yi foofu la ñuy yóbbu te foofu nag bon su fekkee ne ñooñu lañoo ñuy jugé bon dañuy jugé aussi sur la base de de contrat de fait et cetera et te loolu sax comme ni ma ko waxul dafa teel dafa teel ñu commencé dugg ci ay conflits ma rappeler l'histoire de Kumba Ressources muy société boo xam ne dañ ko attribué woon. exploitation ferro Falémé bi man bi ma yegsee ministère de l'énergie à l'époque en 2012 c'était ministère de l'énergie et des mines donc xam naa ci tuuti mais ni ñu traité contrat boobu moo tax Kumba Ressources 72 milliards dañ ko mujjee fay 72 milliards ba pare nag kañ ko jox après mu jul sax dafa dafa dara. ba tey Sénégal dafa perte. surtout la ligne donc affaire contrat yooyu. ba pare nag les contrats pétroliers sont des contrats spéciaux c'est des contrats qui sont pas des contrats comme tous les autres contrats xam li tax ma wax la ko gis nga à part le code pétrolier dafa am ay règlement yoo xam règles yoo xamante ne diggante ce qu'on appelle euh, la joint venture maanaam représentant état bi ak pétrolier yi ak ñeneen ñi nga xamante ne c'est des sociétés par exemple ñoo yore. Euh, voilà tuyaux yi jógee ci suuf 3000 kilomètres yow ci bateau bi dugal nañ ci seen xaalis bu baax a baax ñooñu mooy joint venture bi ñooñu aussi dañuy am ay règlement yu ñu teg loolu aussi c'est des textes si sont écrits contresignés par tout le monde soo demul liir ko looy wax aussi da ngay wax ci gelaw li moo tax ma ne li ngay wax ci terre bi euh, il faut que mu am ay études d'évaluation dellu si waat ci autorité yu bees yi balaa ñuy def déclaration nañu auditer te jàpp ci lu leer. kon bëri na lu ñu wax tey teguwul ci. non par exemple euh, su ma jëlee contra euh, ci ndox mi. Hmm. le ak Aqua Power ak sawu saoudien xool xoolal dégâts ay bu indil Sénégal mais bi ñu rompre contrat ba pare dañu ne dañu auditer hmm. ma foog ne nag balaa ngay romp da ngay ba pare da ngay ba pare hmm. euh, at yi ñu nag. réseaux sociaux yi dañu amoon doole ci réew mi maag yow nii mun nañu toog fabriquer benn information dugal ko am fu ñu ko dugal. Mhm. ba mu far nekk dëgg. aman na aman na ne wéruwul fenn amul ci ça ne correspond à aucune réalité mais réseaux sociaux yi ñoo demee noonu donc yu ci bëri yoo xamante ne man daal yooyu dama koy moytu ba pare dama la ne lépp loo xamante ne c'est dans le domaine industriel. su fekkee ne dëkk bii am na environnement industriel bi lu fa mun a jar mille francs su ñëwee dëkk boo xamante ne dara amu fa fii lan lañ fi mën a defar Sénégal bi euh, terre bi xam nga defar wuñ ko fii mais peut-être am na ñoo xam ne suñ noo xamante ne suñu fa tolloon tey mun nañu jël yoo xamante ne dañ koy de fabrique ko fii loolu mun na am Maroc soo demee Maroc tu vas voir qu'il a une industrie lourde il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées jox naa la fii exemple aviation beeg yooyu donc man yooyu daal ay kii la daal mais li gën a am solo moo di ne su fekkee ne am na ay dérapage ci financement projet yooyu audit moo ko mën a génnee su ko audit génnee ñu fexe ba lii ñëw mu ñu gën ko yaxanal mu gën a am njëriñ ci réew mi waaye aussi mu ñu fàtte lenn mooy li ma doon wax jël benn gis nga lépp lu baax ci dëkk bi soo nekkee njiitu réew mi da koy ñoŋal daf ko suul. nga jël ko yokk ko alors après audit BRT bi ak TER bi dafa doon des sauts qualitatifs dans le transport au Sénégal des sauts qualitatifs je dis bien okay. moi je un expert en euh, pollution de l'air j'ai travaillé pendant quatre ans au centre de gestion de la qualité de l'air c'est une de mes autres compétences euh, Euh, évalué woon nañu embouteillage yi li muy coûter fii Sénégal ak Côte d'Ivoire il y une étude de la Banque mondiale à l'époque okay. on parlait de 60 milliards dû aux embouteillages hmm. kenn mënul naatable terre bi soo gisee ña fay ñi muy yulli ci ay nit suba teel kenn mënul naatable apport bi bu indi ci affaire u fluidité transport hmm. voilà donc c'est des acquis c'est des acquis nga jël aussi BRT bi c'est la même chose BRT bi ñuy jógee côté ba la Guédiawaye en quelques minutes ñu rallier de centre-ville amul taxaw amul kii bon à part les euh, mooy affaire culture bi ba lay wax aussi la culture urbaine culture urbaine bi da ngay gis ñoo xam ne dañuy ñëw jël trajet euh, BRT bi wala jël ainsi de suite voilà mais je pense que dans l'absolu dans l'absolu c'est des progrès remarqués dans ce domaine maintenant nag en matière de gestion tout est perfectible tout est perfectible on doit tendre de plus en plus vers le meilleur voilà léegi nag su fekkee ne établir nañu ay dérapage il y a des gens qui sont responsables. Oui, voilà si responsable yooyu sax euh, la ñu jëm parce que. Mm-hmm. premier ministre démb xamle na ni traque bi dina tàmbali set semaine et ñu yeewoo aussi dégg nañu ne rapport IGF ci mbiram Prodac yóbbu nañu ko dikk sa veut dire que ñuy taq ci mbir moomu ak ci yeneen biir yu ñu jàpp ne dañ ci. waaw mais mënuñu taqal nit te justice bi waxul ne taq na. mais Euh, il faut faire attention la seule personne qui est capable de porter une accusation sur quelqu'un c'est la justice tout le reste de la politique et c'est une sorte de Damoclès mooy li ma la doon wax mm. mooy atmosphère bi am ci dëkk bi baaxul. kon yow traque bi instant bi euh, c'est pas du tout. non su la neexee je ne je je ne je ne parlerai pas de traque. déjà le mot traque. traquer voilà. Voilà. Déjà, le mot taxe est chargé. C'est chaud, c'est lourd. Moi, je considère que tout exercice de gestion doit être, après exécution, audité. Mmh. Et s'il y a des dérapages ou des fautes, que les rectificatifs, attention, mmh. les rectificatifs qui sont à apporter soient apportés. Mais aussi, à contrario, s'il y a des gens qui ont eu à gérer les euh, deniers publics, qui les ont gérés avec parcimonie, responsabilité et efficacité, qu'on puisse aussi leur parler. qu'on puisse en parler aussi. def ay sanctions positives. voilà parce que sinon c'est la politique quoi c'est la guerre politique ban dugguma ci yooyu. honnêtement mais mal mal gouvernance quand même bokk na ci lii. tout à fait wax naa la ne mal gouvernance li muy yàq li muy yàq ci suñu marche vers de développement dafa bëri dafa bëri parce que day day day am lu muy def ci nit ñi day tax sa nit ñi lépp lu ñu waroon def euh, duñ ko def. comprendre nga day yàq suñu euh, mindset comme disent les anglais maanaam notre façon de penser. penser voilà mais, les affaires de l'État la gouvernance le rapport entre l'État et les citoyens donc loolu c'est d'une importance mais il faut le faire dans la sérénité premièrement. te li ñu tàmbali ni il faut arrêter euh, disons euh, euh, les déclarations intempestives euh, les trucs avant l'heure danaa def lii danañ def lii à quoi ça sert mais l'État est là ils ont tous les moyens ils n'ont qu'à mettre en œuvre quand bés bu ñu demee ba boole kii ñu juger ñu war juger et puis on passe à autre chose mais il faut pas que ce soit euh, une antique quoi c'est-à-dire un chant d'église qui ne finit pas ne chaque matin ñu koy wax et cetera non il faut que le Sénégal passe à autre chose que le et puis le temps nous est compté et ça aussi c'est pour les nouvelles autorités. cinq ans la c'est très rapide. donc ces choses-là il faut les traiter avec professionnalisme il faut laisser la justice faire son travail dans tous les pays en France ah même dans les pays développés da ngay gis parfois des gens. même les dañ leen di woo. voilà voilà voilà tout à fait. Hein? Eh, mais il faut pas que ça ait les ça donne l'air d'une d'une chasse aux sorcières de règlement de compte et cetera ça doit être un exercice normal. ku ñu jox moyen état yi. Mm-hmm. c'est normal que état après mu xool saytu li nga def et cetera et comme ni ma ko waxee ah mais il y a aussi des gens qui mériteraient à être félicités ba pare nag aussi en matière de hauteur et de grandeur. gis nga affaire pétrole bi ak gaz bi gis nga si on n'avait pas eu la chance d'avoir un président de la République qui est Macky Sall dont le métier principal et les compétences sont dans ce domaine lu ñu mos a yegg si fii man li ma gënoon neex moo di ne jour bi président Diomaye demee ci bateau bi pour réceptionner le peuple mu tudd président Macky Sall félicité ko xam ne comme ni ma ko waxee il lui a rendu euh, il, il a pu il a pu créer un patrimoine pour le Sénégal jox ko. da ko xalal yoon bi daal. dafa am way dafa xalal dafa liggéey liggéey bu am solo ba pare àdduna moo demee noonu àdduna moo demee noonu par exemple pétrole ak gaz bi ñi ci liggéey. man je connais des gens ñi nga xam ne matin midi et soir surtout temps Covid bi président de la république teg leen pression boo xamante ne parce que tubaab yi dañu demoon. Mm. Covid bi dafa taxoon tubaab yi dem projet yi ñaar dara tardé ñoo xamante mais tey fekke wuñu loolu mooy état. Donc il faut respecter. Moi, à mon avis, respecter, donner de la valeur aux gens qui travaillent pour le Sénégal. loolu moi fa ma mun munti dem ci plateau danaa ko wax fii yàq nit ak waxal nit lu amul dafa yomb il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça. da gis ne ñii ci tànku defante la nekk. bon waaw man daal en tout cas coow li daal coow li man daal je pense que mun na ñàkk daal mun na ñàkk comme je t'ai dit état. état signature am la yore président de la république moo yore la signature la plus puissante de ce pays voilà s'il faut prendre des mesures nañu saytu li ñu war a def ba mu leer su leeree mu jël ay actes état day agir voilà mais coow li daal wax dëgg yàlla daf ñu mettre dans une situation où on perd beaucoup de temps matin midi et soir on est là sur des suñu génnee ci lii dugg ci lale génne ci lale dugg loolu dafa jigul réew mi quoi réew mi la fi mu nekk nii on devait être en tension autour des priorités dont je vous ai parlé éducation fii agriculture souveraineté énergie ainsi de suite hein pour parler de l'Algérie le dernier puits gis nga euh, Angola euh, dernier puits bi ñu découvrir foofu 2023 2024 xam nga kan moo koy exploité qui va jouer le rôle de Woodside là-bas mais c'est la Sonatrach l'équivalent de Petrosen en Algérie ñoom ñooy exploiter foofu pétrole mais ça c'est après un long un long un long parcours d'apprentissage et de maîtrise des technologies moo tax il faut qu'on forme euh, nos jeunes il faut qu'on crée encore davantage euh, des écoles c'est vrai que am nañu INPG man mii sax dama dellu INPG dem jàngi xam nga malgré toute l'expérience que j'ai euh, et je sais que j'en apprends euh, on a eu un module sur les contrats pétroliers mais mooy li ma la doon wax moo di ne affaire wu pétrole dafa am nu muy doxe euh, c'est une c'est une c'est une c'est une industrie qui a qui a qui a, déjà planté ses racines ba pare nag fi mu njëkk a jollee États-Unis la ñu def ci liggéey un peu partout dans le monde et puis pétrole bi moo yore àdduna bi économie àdduna bi pétrole moo ko yore donc dafa am ay règles yoo xamante ne yow loo dugg si tey tey tey tey bu ko changé loolu moom il faut ñu wax ko suñ diggante entre sénégalais gis nga pétrole bi dafa am lu muy doxee gis nga li ñu signé faaw ñu respecté ko te li ñu signé je rapporte encore une fois bépp ak Woodside li ñu signé ak ñoom c'est le CRPP de 98 parce que ñoom bi ñuy seet si bi ñuy ñëw contrat de recherche et de partage de production mais boobu ñoom ñu ngi ñëw xool mais bi ñu xoolee nag. comme que euh, c'est pas seulement des contrats de recherche mais de production et de partage la mais ñoom li ñu signé woon loolu mooy continuer mais yàlla def na yeneen a ngi ñëw ñu koy njoxtal Sénégal di ko ñaan yeneen champ pétrolier génn fii bu boobaa mais tous les pays pétroliers nag fi ñu commencé nii la ñu commencé amul benn ku dugg ci pétrole am ni nga ko bëgge amul ci àdduna bi parce que ñi voilà non parce que ñu ngay fekk sax da ngay fekk ñu am doole xam nga am na koo xamante ne sax soo discuter moom moom day xool ne ah bëgguma dem parce que mais am na koo xamante ne soo je te donne l'exemple de BP le chiffre d'affaires de BP l'année passée 2023 c'est 82 000 milliards de dollars 82 000 milliards son chiffre d'affaires bénéfice net 33 000 milliards de dollars kooku c'est pas ce champ-là qui va l'empêcher de vivre bàyyi ko fi dem du dara ci moom. du dara ci moom voilà ba pare nag ci contrat yooyu il faut ñu xam ne matériel bu pétrolier yi dugal fii Sénégal moo ko moom. matériel bu ñu fi dugal. fii lañ koy bàyyi fii lañ koy bàyyi ñun ñoo ko moom Petrosen moo ko moom donc yu bëree bëri ci biir nit ñi dañuy wax xamuñu. am na ci ay avantages. voilà pourtant dañu jàppoon ne le Sénégal a été lésé sur mais ça on peut ah, ah, mais loolu ku ko wax soo ma ko waxee dama lay wax. fii wax les 10 pour cent euh, am ak. Euh, est ce que 10 pour cent lañu am. te du 10 pour cent yi ah xam nga ni lii loolu du dëgg mais comme lii ma la ko doon wax réseaux sociaux yi fexe nañu bay dugal ko ci boppu Sénégalais yi alors que c'est pas du dëgg wéeruwul fenn amul fenn fu mu wéeru te ñiy wax loolu liiruñu moo tax ma ne la presse. économique, elle doit être renforcée. C'est la presse politique, c'est le débat politique qui parle dessus. Tout est politisé. Tout est politisé, et ça, c'est pas bien. L'autre jour, j'ai suivi une bonne émission euh, sur, je leur fais la publicité sur la TFM, initiée par Cissé, Abdoulaye Cissé, qui a invité des, des, industriels, des trucs, qui discutaient un peu des conditions d'émergence. Hein? Parce que souveraineté. Mais voilà les souverains. mais day fekk nga téye sa bopp suñu taxawul du ñu mës a souverain le préalable comme le disait mon ami Youssou Diallo le préalable à la souveraineté mais c'est l'indépendance économique ou la quasi-indépendance économique maanaam les choses essentielles nga mun ko téyel sa bopp mais sinon souveraineté mais ay wax la ay wax la. kon sore nañ souveraineté voilà ñu ñëw transition peut-être ci affaire géej gi xam nga fii coowal nañu coow ne. bateau étranger yi moo tax géej gi amatul ci ba ñu defee audit bi lan lañu gis que sur les quarante six et quelques bateaux Union européenne dix neuf bateaux lañ ci am ba pare que dañuy fay wax nañu sax ñoom suñu assiette fiscale bi ñaata lañ ciy dugal te gis nga ay wax la xam nga cette façon de désigner l'étranger loolu dañ ko war a dàkkal il faut arrêter ça xam nga li tax d'abord ñun le Sénégal a été bâti sur un tapis d'ouverture sur une natte d'ouverture ñun ñoo bugg Sénégal nekk un pays ouvert un pays, pays démocratique teranga, voilà pays de la teranga fii ngay gis un étranger fii nga doon gis un étranger bu ñëw gën a nekk à l'aise ki ñu fi fekk wala mu dem sax ba nekk fa maire on a vu ça partout woyu Sénégal boobu il faut ñu téye ko il faut pas qu'on donne tout le temps l'impression que nos malheurs ça vient de l'étranger c'est pas vrai taxawul fenn gis nga affaire géej il y a d'abord que les principaux acteurs xam nga prise yi ñu jëlee ci géej gi parce que 60 pour cent yi c'est la pêche artisanale mais pêche artisanale boobu quelles sont leurs pratiques dans la mer mais des méthodes de pêche non durables un refus de respecter toute règle qui préserve la la la la la ressource maanaam euh, suñu pêcheurs yi daal amuñu lu leen neex napp fu leen neex nappee. nu nu nuñ ko nu leen neexee nappee itam même les juvéniles maanaam maanaam yu ndaw yi. usine chinois yi ñuy wax kan moo leen di jox jën yi ñuy defar poudre pour yóbbu ko ci seen pisciculture yi suñu nappkat yi te yu ndaw yi la ñuy jël donc ñun il faut ñu bàyyi suñu amee naqar wala suñu amee góom ñu ne góom bi diw moo ko def ba jox xool ñun est-ce que du ñun ñoo am suñu góomu bopp. loolu loo xamante ne war nañ ko liggéey ci dëkk bi du exemple boobu kese bëri na ay exemple yu mel noonu gis nga géej gi OMS euh, non euh, FAO nee nañu Afrique de l'Ouest gis nga suñu góorgóorlu ci suñu géej gi d'ici trente ans danañ toog bi ñun jën jafe ñu maanaam euh, suñu géej gi day mel ni mer Méditerranée nga xam ne ay télévision yu yàqu ak ay deux shows yu yàqu ñoo nekk ci biir loolu moo ñu yott parce que population bi day croître ba pare suñu méthode de pêche yi c'est pas durable maanaam nit ki. amul voilà voilà même ngelaw li ñuy noyyi am na nu ñuy defee soo ko noyee da ngay feebar amul ressource bu nekk ci àdduna bi te du nekk une ressource infinie loo gis dafa am lu ñu koy gérer mais suñu pêcheurs yi mais matin mit soir guddi ak bëccëg ñu ngi ci géej gi amul benn réglementation suñu waxee ne. Ali Aïdara mu ne na fi combat boobu ñu am benn période de de repos mais nit ñi ñoo bañ. jën yu ndaw yi mën a màgg. pêcheurs yi ñoo bañ ñoom ci seen bopp ñoo bañ Mauritanie bi lu tax mu bëri jën noonu ñoom dañu am seen période de repos gis nga soo fexee bi tëmbal sa gaañ pari période boobu ba ñu jàpp la dootoo ko defati. non seulement Sénégal daal anarchie moo fi am. voilà c'est-à-dire que ñun on on on voilà ku nekk daal sa intérêt bopp ngay xool ba pare on n'a pas cette notion de finitude. maanaam àdduna amul loo xamante ne voilà euh, comment on dit encore euh, yaata ba nang quoi si si tu peux faire ce que tu veux il se passera rien c'est aussi pareil pour la forêt pour les arbres ak rôle bi ñu joué ci environnement bi mais ñun euh, fayda lu ñu garab on a fait la journée de l'arbre là tey lu mu dee dee sénégalais bu nekk sa biir kër waroon nga jëmbat benn garab mais c'est juste euh, l'événement politique et cetera bon à part quelques associations mais li ñu ci waroon def te côté boobu aussi si on veut reverdir vraiment le Sénégal ce qui serait une excellente chose am impact d'abord sur la qualité de vie parce que les arbres moom mooy li nekk ci àdduna lu ñu xam moo xam ne mun na setal ngelaw bi ñu nooy garab rek moo ko mën amul leneen amaguñu machine boo xam ne na nga koy taal sa kër muy purifier air bi. di jël gaz carbonique di la voilà amagul garab rek moo ko mën ci àdduna deuxièmement garab fu mu amul. Euh, suuf su baax mënu fa am maanaam une terre fertile garab le cycle du carbone nga xam ne dafa am rôle essentiel sur la fertilité garab moo ko téye te ñun suñu paysans yi xamuñu ne ñoom garab dafa am rôle bi muy jouer ci seen productivité même suñu wax nii reboisement da xool waa àll bi boo ko de pour l'essentiel waa taax yi ñoom ñooy reboiser. dañuy préférer espace yooyu ñu voilà ba pare nag en matière même médicinale de pharmacopée. am na ay espèces forestières yoo xamante ne ñu ngi commencer disparaître ci àll bi mais même paysans yi nga xam ne suñu mbokku béykat yi koy utiliser ñoom sax duñ ko jëmbataat parce que amuñ ci conscience bon donc asaru géej gi pour reprendre encore une fois il faut ñu am ay règles il faut ñu am ay règles ba pare nag jublu ci pisciculture FAO rapport am boobu loolu la wax nee na non seulement suñu géej gi danañ toog ba pour am ci jën dana jafe. mais suñu jubluwul ci culture jën bi nga xamante ne moo ñuy indi 60 pour cent protéines yi ñu soxla parce que ñun du ñu lekk yàpp fii sénégalais bu nekk ñaata kilo yàpp ngay utiliser par année soo defee moyenne bi taxu koo bari parce que yàpp dafa cher parce que loolu aussi beneen marche la beneen défi la production animale yi Sénégal jotaguñu foo xamante ne yàpp bi dana doon loo xam ne c'est à portée sénégalais bi bu bëgg a lekk yàpp ngay lekk ko yo tollaguñu foofu comprendre nga donc loolu aussi beneen défi la beneen défi la de telle sorte que daal euh, man daal je pense que suñu yéenee ak suñu nam li ñu namm mooy autorité yu bees yi ñu génn a ubbeeku gën a am njort bu baax ci nit ñi encore une fois man sama bopp taxumaa wax man maa ngi ci leneen man wax dëgg yàlla man j'ai servi mon pays parce que pendant douze ans au niveau de l'état central joxe naa li ma mënoon dama bugg a jublu ci yeneen maanaam ay création d'entreprise apporter aussi euh, de ce côté-là de l'innovation dans certains domaines et puis pouvoir employer des gens mais sénégalais yi bëri nañu ci àdduna bi bëri nañu biir Sénégal lu ñu mën a indi su fekkee ne dañ la dënk réew mi da nga war a ubbi da nga war a chaque jour ngay woote ku xalaat ku am xalaat bu rafet ku am loo xamante ne mën nga ko dimbale Sénégal ma porte est ouverte ñëwal maa ngi.